lu bees ci mbirum soxna Aïda Diallo mi nga xamante ne bii moo fi nekkoon soxna ci euh, jëwriñ jooje di Cheikh Béthio Thioune jiite woon fi bépp cantaakun ci réewum Sénégal moom Aïda Diallo nag dafa jël ab communiqué di leeral ne li nga xamante ne bii dañ koy teg ci ndodam di ay accusation lépp daanaka daf ko féq ne dara du ci dëgg donc li mu xamle moom soxna Aïda Diallo li mu mës a revendiquer mooy titre taalibe ci Cheikh Béthio Thioune mi nga xamante ne bii moo fi nekkoon borom këram nekk itam guide bépp cantaakun ci document boobu le moom soxna Aïda Diallo dafa xam xam ne gannaaw ba nga xamante ne Cheikh Béthio Thioune def na ko ab jëwriñ ngir mu jiite bépp cantaakoon ci réewum Sénégal ak ci àddina bi dafa mës a revendiquer ne moom ci turu taalibe kese lay wéyee te képp koo xamante ne bii jot ngaa fësal ab photo texte vidéo wala lépp loo xamante ne bi da nga ne moom soxna Aida Diallo moo ko def daanaka yoonam du ci nekk te loolee nag dafay bàyyi ak ki ko def yàlla suñu borom moom soxna Aida Diallo kon yooyu la leeral la indi ci li nga xamante ne bii jot na fa xew ci réew mi nekkoon naka ci bopp askan wi ñu bëri mu ump leen.